Bonsoir, je m'appelle Ahmad Wele, alliance DJ Akoum, l'animateur du peuple par choice, non par hasard, Zabid Adjakai. Merci. Hein? Ouais, bien sûr. Ça fait presque deux ans, moi, ici. Ouais. am TikTok am Instagram am compte YouTube am compte Facebook maa ngi partout les réseaux sociaux en fait maa ngi animation laay def animation mbalax mais parfois ñu ngi may woo pour ma reporter match wala pour ma euh, euh, animer concert ça dépend oui ah non c'est animation mbalax bi laa gën a sentir sama bopp waaw mm-hmm. ma présenté benn émission Assalamu alaikum, bonsoir fidèles téléspectateurs de la Proxy TV, la télé qui vous informe, vous divertit, vous accompagne dans la communication de vos affaires. Vous êtes dans votre émission Découverte Art, comme vous le savez, l'émission qui a pour vocation de vous faire découvrir une ou plusieurs facettes connues ou peu connues dans l'art sénégalais sous la présentation de DJ Akoum et 525, l'animateur du peuple, par choice, non par hasard. On va tout, wér te di sàkku si ñoom ñaan bu baaxa baaxa baax a len nee TV non lay def ak yeen rek dal di dugg si hôpitaux yi fekk fa ñi nga xam ne ñooy yi di len ñaanal yalla fëgg seen i bopp ñi nga xam ne caabi na len ginnaw yalla genné len fa ñu baña defati li len fay delloo ay ca heure bu baax bi jotati na ñu watina dans votre émission découverte art ma ngi nuyu caméraman bi bu baaxa baaxa baax di bëggee kep ko xam ne yaa ngi safoo la Proxi TV merci Wally Seck ak Sidi Diop ba coow bi bëri woon na tu vois coow bi bëri woon na mais euh, man li ci gis moy euh Wally dafa dafa genné même pas une semaine Sidi Diop genné la même chose gars yi di critiquer tu vois amna ñu né amna ay espion yu nekk ci ñom ci si Wally Seck di ñëw ci ñom si di ñëwaat ci Sidi Diop en tout cas man personnellement li ci gis moy art bi dafa yaatu ku nekk mu ngi dóor waaram ku nekk mu ngi bay waaram tu vois yenn critiques yi jaru fi quoi Sénégal benn bopp la kenn maru ko xar ñaar te art bi dafa yaatu ku nekk mën nga bay sa waar ku nekk mën nga nekk fi nga nekk dóor comme xaar nga sans sans autant sans aucun problème quoi en man loolu laa si gis. waaye waaw loolu am na xam nga animateurs yi c'est pas parce que je suis animateur mais animateur yi maanaam dafa bari ñoo xam ne dañuy def lu leen neex tu da ngay gis koo xam ne genre par exemple quoi da ngay gis benn DJ Xeuss xamul dara ci animation maanaam animation daf ko neex ñu ngi koy woo ci concert mu ngi animé concert mu jóg rek mu ne moom day doon animateur te am na ñoo xam ne maanaam dañuy dugg ci métier bi pas par amour mais par argent comme xam nga dañuy dugg ci métier bi ñëw ci benn artiste wax ko artiste bi yëkkati dara jox ko mu demaat ci beneen artiste aussi dem waxaat ko leneen kooku yëkkatiwaat dara joxaat ko comme nga dañuy nekk dañuy def entre euh, artistes yi ñoom ñooy indi problème bi. comprendre nga dañ ci ñëw maanaam mën naa wax dañu ñëw pour yàq aar bi quoi en fait mais tant que ñun jeunes yi dañoo ñëw pour relever loolu ndax amour moo ñu si dugal ak passion du leneen.